Euh, ci bar Seexna al Xadim dellu santa suñu borom bi mu nu may ñu dikkat ci jataay bi ci waxtu yi fas yéene àndaat ak ci sunu émission yóbbalu soxna yi muy sunu émission Zaadu Nisa doon émission boo xam ne émission bu laayante biir la waaye émission fàttalante la ñu di ko jëmmale ci euh, sunu bokki soxna yi doon émission boo xam ne Euh, ñoo ngi ci ñoo ngi ci doon ak waxtaan ak sunu bokki soxna yi ci lenn ci li nga xam ne lislaam gërëm na ko ci jigéen ak li nga xam ne lislaam ŋàññi na ko ci jigéen waaye yi mut sax ci jigéen lislaam gërëm ci eh, ci jullit bi waaye li mu ŋàññi ci jullit bi émission bi nga xam ne moo passé nag noo ngi doon ak yéen ci ba léegi ci wasiya soxna Penda boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa doon ko bind waaye doon ci dénk soxna Pend Jóob mu doon dénkaane boo xam ne bu am solo la bu ñëpp war a bàyyi xel rawat na suñu bokki soxna yi noo ngi donc yéen ci tomb yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon joxañ soxna Pend Jóob di ko digal ba agsi ci tomb duum yi alal xumuuli mooy na nga sax ci di nëbbutu waaye bul dox di génn comme ni nga xamee ne noonu la ko ñenn jigéen ñi di defee mooy del nëbbutu sa kër tey del suufal sa kàddu jigéen la gën ci moom mooy mu toog këram su fekkee ne dem na bu mënta ñàkk nag bu muy génn su boobaa nag génn génn goo xam ne génn gu lislaam gërëm la mooy ne sutural boppam ci aw doxinam ak i waxinam ak i colinam ak la ci aju lépp indi woon na na aay bu nga xam ne eh, suñ borom subhanahu wa la daf ko doon wax ak soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nisa annabi lastunna ka ahadin min annisa in itaqaytunna fala tadana bilxawli fa yatmaa allasi fi qalbihi maradun wa qulna xawlan maarufan waaye waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljaahiliyati al ula fa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasuluhu ba aaya ba jeex ñu indi woon ko euh, xëcc ko ci sunu jamono ji nga xam ne ci lan nga xam ne buñ ko indi da naan yaa yaa sa annabi mooy yéen jigéeni jullit ñi euh, ba aaya ba jeex mel ni aay la boo xam ne bu jara bàyyi xel la waaye bu jara jàngat la waaye bu mën a yaatu la lool ci wàllu jigéen ci ni mu war a sàmmonte ak toog këram waaye bañ di génn waaye di suufeel kàddoom waaye di bañ di génn ci lu dul génn koo xam ne génn gu lislaam gërëm la waxoon nañ ci nag ba indi tabarruj dëgg-dëgg tabarruj euh, mooy jigéen ji nga xam ne day génn te génn ni lislaam gërëmu ko génn rek ngir feeñal ab taaram ngir ni nga xam ne noonu la ko jigéen ñi daan def lu jëkk lislaam di dikk te bi lislaam dikkee tënk jigéen sañu te génn ci génn noo ko neex buy génn ne génn génn woo xam ne génn gu lislaam gërëm la mooy na farat tax mu génn su farata taxee nag bu muy génn nag su génn itam na sol loo xam ne lu yiw la lu lislaam gërëm la loolu sax nag su mënta am la muy génn lu mu nekk nekk farata te mënta génn lu dul ci ak tubrankewu mënta génn lu dul ci ak raflewu su boobaa la gën ci moom mooy wax waxar na fi wéetu kun na mooy natoo këram bañ a génn wala nga ne euh, duumi alal xumool kon naga sax sa kër te nëbbutu bañ a génn waaye bokk na ci itam jigéen bu demee ba mënta ñàkk génn ba mu génn ba sàmmonteeg li ko lislaam digal mu meloo ni ba tax mu génn itam ak bu toogee këram mooyam saay bu waxtu julli jotee te amul ngant lu ko tee julli na daal di taxawal julli su demee ba am yaxantu ba am alal joo xam ne tam asaka mën na caa génn ci matum nisaab ga ak matuk at su boobaa na góor war a génne asaka noone la góor noone la jigéen war a génne asaka waaye nag boole ci di topp ak ak topp yonentam ba sallallahu alayhi wa sallama ndax li ci topp yàlla ak topp yonent bi euh, sun boom euh, subhanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama li ci nekk bari na lool alquran wax na ko waaye nag li ci mooy yàlla ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci nekk ci ay mbugal alquran wax na ko bari lool dafa bokk nag ci mooy yàlla mooy jigéen ji nga xam ne day génn te génnin wi nga xam ne moom lay génn lislaam gërëmu ko wala bu ko lislaam gërëmee melokaan wa nga xam ne noonu lay génne lislaam gërëmu ko loolee dafa bokk ci ak mooy yàlla ñu waxoon ne bokk na ci lenn ci waroom xam-xam yi ninu xaaje jigéen ji nga xam ne day génn te ñu tudde ko tabarruj def nañ ko ay xaaj bokk na ci xaaj ba nga xam ne moo ci jëkk mooy wax nañ ne atabarruj mooy yàlla la ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy suñu boom subhanahu wa taala alquran moo waxam ne wa man yaasi laaha wa rasuluhu faqad wa man yaasi laaha wa rasuluhu fa inna lahu naaru jahannam koo xam ne da nga mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ëllëg yawmal qiyaama sawaru sawaraw jahannama moo ko ñeel te bokk na tomb bi jëkk ci mooy bi nu xaajee atabarruj mooy lan to ba ci jëkk wax na ne mooy euh, mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam wax ne képp koo xam ne da ngaa mooy yàlla subhanahu wa taala mooy yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam ne ken yow loo sa bopp wa man yaasi laaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsahu koo xam ne danga mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ci nekk ci ay mbugal nag yow loroo kenn ku dul sa bopp ba indi woon ci xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku mën doon ci sama xeet wi dana dugg aljana ba mu des ki bañ ne ko yow ki yàlla yónni nit ki naka lay bañ a duggee aljana mu ne koo xam ne dama topp kooku dana dugg dugg aljana waaye koo xam ne daf ma moy kooke mooy ki bañ a dugg aljana mooy ki nga xam ne bañ naa bañ naa topp ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa te ku ko topp rek sawara moo lay ñeel mooy yàlla nag mënta passé suñ tënk jullit bi ci nangam jullit ba tinki ca boppam jullit sañ ta dem fu ko neex sañ ta wax lu ko neex sañ ta lekk lu ko neex sañ ta solowoo lu ko neex daa am fu ko suñ borom tënk ngir mu dem fa foko eh, sun moom tënk ngir mu dem fa ak fu ko tënk mu bañ faa dem noonu la amee ci waxin wi noonu la amee ci doxin wi noonu la amee ci colin wi su fekkee tinki nga sa bopp ci yooyu yëpp nag fu la neex dem lu neex wax lu la neex lekk lu la neex melowoo su booba yow sa bopp ci ak mooy yàlla kookee nag mooy ki mooy yàlla mooy ki mooy yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañu jàlloon ci jataay bi paase te muy tomb bi jëkk ci atabarruj maasiyatullahi wa rasuluhu kon ñu dikk yéen ci tombub ñaareel bi tombub ñaareel bi wax nañ ne tabarruj bokk na ci bakkaar yi nga xam ne bakkaar yi alak doomu aadama ji la te atabarruj kabiratun mubixatun saay bu ñu waxee tabarrujna nag mooy wax nañ ko leeral nañ ko leeralaat ko mooy jigéen ji génn te génninu lislaam gërëmut ci aw waxeenam ak i doxeenam ak ci aju leeral nañ ko ay yoon yoon saay bu ñu waxee tabarruj kon nan xam ne loola lañ ci jublu euh, ku ni wax euh, umayyatu bintu rafiqatu dikkoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ki yàlla yónni euh, dama ñëw ngir jaayante ak yow ci lislaam dama jaayanteeg yow ci duma bokkaale yàlla duma bokkaale yàlla ak dara waaye itam duma sàcc alali jàmbur waaye itam duma njaaloo waaye itam duma duma am doom ba pare di ko rey waaye itam duma duma def mukk sa loo xam ne lislaam gërëmu ko loolu mooy ubaayaka ala an la billahi wala tasrixi wala tasni wala taxtali wala dik wala taati bi buhtaanin yaftari lahu bayna yadayka wa rijlayka waaye wala tabarruji tabarrujal jahili jahiliyatil ula nga gis ne kon li mu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi bokk na ci mooy duma def mukk tabarruj duma génn mukk génn boo xam ne lislaam gërëmu ko su may génn soxla rek mooy tax may génn te bu soxla amee ba tax may génn itam dinaa sàmmonte ak sama melokaan ci colin wa ak waxin wa ak la nga xam ne moo ci aju kon loolu bokk na ci li nga xam ne jaayoon jaayante woon ak soo soosu jaayante na ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu bokk ci atabarruj ca la mu jaayante ak moom mu ne nag boo setantalee foofu di nga gis ne dafa bokk ci atabarruj ci bakkaar yi nga xam ne bakkaar yu mag la yu mën a alak jàm bi fa taamal kayfa qarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam atabarruj atabarruj al jahiliya min akbaril kabair al muhlikatu nga xam ne bokk na ci génneen yi nga xam ne doomu aadama yi wala jullit ñi rawat na jigéen ñi ñu ngi koy génn ci génn woo xam ne génn wu lislaam tera la génnin woo xam ne ak colin woo xam ne nga gis góor goo xam ne da gis mu solo nga xam ne bu la dandee doo xam góor la wala jigéen la wala jigéen joo xam ne colam gama col génn nag moom wala dandee doo mën a xam góor la wala jigéen la ak na ba ci am na ñooñ sax la leen ci jur mooy dëgg dëgg nuru dëgg dëgg góor nga xam ne lépp loo xam ne day waral boo leen ne jàkk xam ne ñoom xam ci saa si ne jigéen la suba loola dañ koy jéem a dañ koy jéem a koy jéem a ndax boo leen xoolee di nga leen teg góor te fekk booba jigéen lañu wala boo leen xoolee di nga leen teg jigéen te fekk booba ay góor lañu te loolu nag nekk loo xam ne lu xaram la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo wax ne la am na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yalbasu lubsatal marati wal maratu talbasu lubsat rajuli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na góor goo xam ne day sol yérey jigéen wala jigéen joo xam ne day sol yérey góor góor goo xam ne na muy solo boo ko xoolee doo mën a xam digg-digg ndax góor la wala jigéen la lu ne da nga ko setantal ko wala jigéen joo xam ne boo xoolee na muy solo doo xam digg-digg jigéen la loolu ne da nga ko jege wala nga setantal ko doo xam ne digg-digg jigéen la loolu nag lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb la ca kanam boromam Uh, yonent bi sallallahu alayhi wa ne sinfaani min ahli naar lam arahuma xawmun ahum siyaatun ka asnimatil baqar yadrabuuna biha nnaas wa nisaaun kaasiyaatun aariyaat maa'ilaatin muuminaatin ru'usuhunna ka asnimatil buquti uh, yonent bi sallallahu alayhi wa ne ñaara ngi yoo xam ne ci waa sawara ci waa sawara lanu bokk lam arahuma mooy fekkewunu sama jamono lam arahuma fekkewunu sama jamono lenn ci borom xam-xam yi mooy gusuma leen ci yërmande suñu borom subhanahu déggee ko ne gusuma leen ci yërmande suñu borom subhanahu wa taala te mbokk yi képp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa gusut la ci yërmande suñu borom booku moom fam fam nekk rek xam nañ ko mu ne ñooñ ñan moo ñan mu ne Euh, aw nit lañ ñoo xam ne dañuy yor loo xam ne day mel ni ki génnub nag waaye nag di ko dóor nit ñi ak jigéen ñoo xam ne dañuy solu ba pare rafle dañuy solu ba pare rafle loolu nag lu neex a dégg la jigéen joo xam ne la mu sol boo ko xoolan di ko xayma la muy jar ci ab xaalis ba day bari lool seer lool nga mën ci am yére yu bare yoo xam ne yu jot la yu jot sëkk la waaye nag mu sol ko yaramam yëpp nekk ci biti mosol ko mu gàtt lool wala mu ko mu yaraax lool wala mu ko mu xat ci moom lool te fekk na boobu mu jënd ko jënd mu jënd ko njëg gu seer lool loolu mooy kaasiyaatun aariyaat loolu nag mbokk yi bari na lool sol lu seer lool tarafle lool sa yaram yëpp yëpp nekk ci biti ruusuhunna ka asnimatil buxti waaye ñu def ci seen seen bopp ya loo xam ne day mel ni jigéenub giléem loolu nag mbokk yi bari na lool ma'ilatun yadkhulul jannata la wala yajidanna rihaha dana ñooñee di duñu dugg aljanna ñoom ñi nga xam ne dañuy yor lu mel ni ki génne nag di ko dóor di ko dóor nit ñi ba pare jigéen ñi nga xam ne tam dañuy solu lu seer jënd ko lu seer xaalis bu bari lool waaye nag sol ko bari seen yaram yëpp nekk ci biti seen eh, mu yaraax wala mu xat wala mu gàtt nga ne ñooñee day eh, bokk ci ñiy dugg aljanna laa yadxuluna aljannata wala yajidanna rihaha ne na ñooñee duñu dugg aljana ngetoog aljana sax nag far du leen xeeñ mbokk yi jigéen ji nga xam ne dafa sol lu seer jënd lu seer sol ko ba pare def ci boppam loo xam ne daf koy jaral waxtu julli jot mu lànk bañ koo dindi bañu joxe waxtu suñu borom subhanahu wa taala mu doon lu doy doy def ci sa bopp loo xam ne bu waxtu julli jotee doo mën a julli ndax da ngay bañ ndox laal ca te boo doo julli ah, du ci yem sax nag sangu farata bi nga xam ne sang càngaay li nga xam ne mooy càngaayil farata doo ci jege bu la waree ak donte toj la moo xam ne toj mu mag la nga xam ne bu la sangu farata waree sax doo ko sangu ndax boo ko sangoo li nga def ci sa bopp wala nga def ko say buut wala nga def ko say loxo wala nangam nangam te bu ko ndox laalee mu yàqu suba daf lay baral daf lay jaral la bañ jàpp julli daf lay jaral la bañ sangu farata te nga ànd ak toj mu mag nga xam ne lay wàcce toj ma ci yow mooy sangaayil farata loolu doy doy waar la mbokk yi rawat na suñu bokki soxna yi kon loolu lu jara bàyyi xel la lu jara moytu la kon xañ na dañuy taxawlu foofu insha Allah sunu jataay bii beneen jataay bi bu dikkee ñu gën a jàllaat insha Allah ci beneen ci beneen ci beneen euh, ci beneen tomb waaye daan ñu bàyyi xel ne ñoo ngi woon ci ba léegi li Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Diop ba toll ci tomb duumi alal xumuuli wa tasaturi wal dux fi di saw sawtaki dëhëran tushkari kon insha Allah taala dañuy teg ko sunu sunu loxo Euh, soola sunu baaraam bu dikkaatee jàll insha allah waxoon na nekk lu aji ci wàllu duumi alal xumuuli wa tasattur yi dafa lënkalu ak ay boo xar na fii buyuti kunna te mu doon lu mën a yaatu lool sax mën a yaatu lool insha allah taala des na ci dikk sunu kemtulayel kattan ak sunu kemtulayel digg ba ci jataay yi nga xam ne moo nekk ci kanam insha allah taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu